sell na sell goo xam ne. Mm-hmm. bugguma ci jamono jooju ñu associé sama image ak image am. Mm-hmm. waaye nañu defal ñaan bi. Mm-hmm. parce que xam naa ne bu ñaanee rek mu sotti. alhamdulilah. ña ca des ñëpp sëñ Mourtala def na ay mbiram yónnee ñu andi. ah sëñ Fallou Chouaib nga xam ne moom it ñëpp xam nañ sama diggante moom. ñëpp tawarikana ñëpp bàyyi biram nii di ma dawal xam na. Mm-hmm. moom eh, daan ma ñaari weer wala yu demee te dew ma julli àjjuma foofa. suñu paree añandoo mu ñaanal ma dem. Mm-hmm. alhamdulilah. Eh, suñu Amadou Mokhtar. Mm-hmm. moom it dàqal na ko yónnee na ay mbir. vraiment su ma naree lim. dëgg la damay sax. dëgg la am lu ma fàtte. dëgg la te te loolu dafa am fu sore fu mu yegg ci man. Hmm. fu sore sore sore. Hmm. ndax yëg-yëg la yërmande la. Hmm. waaye boole ma si seen biir seen bopp. moo tax ñu def loolu. alhamdulilah wuñu sax xam laajuñu essayé wuñu xam lu xew ak lu xewul. mbir mi dafa ne kët na joon rek yónni. kon. soo jëlee nag kaaw sëñ Abdou moom. Hmm. li may faral di wax rek man sëñ Abdou damaa am kers sama diggante ak moom. Hmm. léegi dama koy làqatu. dama koy làqatu. Hmm. keroog mi def déclaration yéeguma ko. dëgg la benn instant laa yéeg premier noonu rek ubbi rek gis mu ngi toog di wax mu tëjaat. yéegalu ma. Hmm. te bu mbir bi amee ba léegi defe naa coono gi mu ki daj. Hmm. sama ndey mi jur daju ko ci. léppam la bàyyi lépp lépp lépp nekk ci. tubaarikàlla loolu nag ku mu doy dafa def ma xamul xamul lay doy. dara dara dama sëñ Abdou Mbacke. Hmm. man mënuma koo gërëm lu doy. danaan sama sëriñ la waaye ëpp na loolu. dafa ëpp loolu. parce que kenn ku ne mun nga am sëriñ léeg-léeg nga dem seeti ko. dëgg la am tuuti loo toog ak moom mu defal la ñaan nga dem wala nga dis ko say mbir. dëgg la waaye moom dafa dépassé loolu maanaam moom dafa dafa dafa am une complicité naturelle. dëgg la naturelle dëgg la. kon euh, ma seedeel ko ko fii. sëñ ab su dul woon sant gi sax. Hmm. suñ ko jëlee ci nite gi rek. Hmm. nit la bu yàlla defaral boppam. Hmm. te loolu. unanimité la. Hmm. kër goo dem kër diine goo dem. kuréel diine goo dem. bañ na ba daal euh, màggal daaru bi. gis nga ni muy demee seen vision bi dafay ubbeeku ñëpp ngay dajale rek. kon euh, ma seedeel leen ko yéen ñii. jërëjëf ci daayira bi. jërëjëf ni ah sëñ Abdou de mat na lañ ko doyee. Mm-hmm. su dee sëriñ dong dong dong. dañuy mm-hmm. seet. Mm-hmm. mbal na ko. alhamdulilah. waaw parce que lii la ñuy doyee sëriñ. moom wax na ko day doore doore koog mbal. dëgg la dëgg la. ndax bi Sénégal di tàgg 2009 ak ñoom seen. ñi fi yor tey dëkk bi di tëb yëpp. Eh, këram lañ doon def. wala ñu woo ko ne ko